del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu mbokk internet ñuy bàyyi xel saa su ne ci Feeling Dakar TV euh, ñu ñëw ak yéen nag ci li nga xam te ni moom moo di actualité yi gën a ci biir semaine bi dañ koy euh, tàmbalee nag ak Abou euh, Thioubalo ginnaaw bi nga xamante ni animatrice bi di Bijou Ngoné daal di woon na koy dalal ci confrontation moom nag Abou Thioubalo moomule dafa daal di énervé rek gannaaw ba nga xamante ni moom Bijou Ngoné moomule daf ko daal di laaj rek la moo tax carrière am gàtt ci noonu la ki nga xamante ni moom moo di Abou Thioubalo moomule daal di mer ci laaj boobu euh, daal di koy euh, tontu rek euh, ne ko ñaata yoon laa sëy tas da doon garawaale ki nga xam te ni moom moo di Bijou bu ñu uh, jógee foofu nag dañuy wax ci ki nga xam te ni moom moo di ñaaxarañ uh, loo uh, moom nag ñaaxarañ loo nga xam te ñu ngi ko gën a xam sax ci sinabam yooyu muy def moom nag ñaaxarañ loo ginnaaw aljuma ji ñu génn moom nag ci inauguration mosquée bu nekk foofu ci Parcelles Assainies unité 10 moom nag dafa daal di sinab li nga xam te ni moom moo di julli juma ji comme nu mu ko tàmmee di def rek waaye ba tey dañuy desandi ci julli juma jooju ak mosquée boobu léegi nga xam te ni sax niki aljuma ji ñu génn lañ ko daal di woon a inauguré waaye ki nga xamante ni moom moo di ñaaxarañ euh, loo moomule euh, dafa daal di euh, wax rek ni que dafa daal di participer ci li nga xamante ni moom moo di euh, construction mosquée boobu la waaye am na ci yenn ñoo xamante ni moo di ay jeunes yu euh, dëkk foofu dañoo daal di euh, démentir yooyu la wax ni que xarañ ñaa xarañ loo moom moom la da doon njublagee li nga xamante ni moom moo di mosquée boobu di wër di laaj xaalis waaye xaalis boobu defu ko benn yoon ci li nga xamante ni moom moo di mosquée boobu la bu ñu jógee foofu nag dañuy wax ci doom Sada Kane ak Ndella Madior Diouf di Sara moom nag ginnaaw bi nga xamante ni moom loo nekk nekkoon euh, ganu euh, waa Sen TV ci émission bi di euh, Sen Buzz moom nag Sara Momule gannaaw bañ ko laajee ci question bi nga xamante ne ni moom moo di relation bu mu am ak papam di Sada Kane moom lu mu daal di xam le rek moom moo di moom Sara Momule ku bëgg papam la ku ko fonk la ku ko naw la donte sax ni que ñaari yoon rek la ko mos a teg bët ci àddunaam moom Sara Momule loolu la daal di xamle ba noppi mu daal di koy jeexalee rek ni que bëggul dugg ci diggante diggante eh, yaayam ak papam ndax moom eh, di doom eh, tuutu na si loolu bu ñu noppee ci loolu nag dañuy wax ci rappeur bi di euh, dix mille problème moom dix mille problème moom la euh, bi nga xamante ni sax euh, xamee nañ ko ay wax yu ñagas ay saaga ak li moom nag dix mille problème moom la dañ ko dalaloon ci plateau bi daal moom dix mille problème moom le bañ ko laajee ci question wu yaayam rek dafa daal di bët bët yi di jooy moom nag dix mille problème mu mel ni ginnaaw nit ku ànd ak bi moom nekk na koo xam te ni nit ku sensible la ndax moom dafa daal xam euh, xamle rek ni que euh, jaar-jaaram euh, dafa metti ginnaaw ba nga xamante ni nekkoon na Saint-Louis nekk ci daara di jàng alxuraan ci noonu la pare ñëw fii ci Médina am na benn instant boo xamante ni sax génn na këram waaye nag moom dimi problème lu mu daal di xamle rek moom moo di yaayam nekk na koo xamante ni dafa daal di participer ci lu bëri ci dundam ba tax na daal mu ngi koy ñaanal gudd fan bu baax ñun tamit loolu lañ koy ñaanal moom mooy yaayu dimi problème moomu lee bu ñu noppee ci euh, moom dimil problème moom dañuy dugg ci ki nga xamante ni moom moo di Aby ak coowam boobu mook Atepa ginnaaw abindur Ndour euh, vidéo bu mu defoon di si yëkkati ay kaddu di tuumal Atepa moomu le euh, ci loolu Atepa tamit daal dina koy porter plainte ñu fàttali leen rek ni que plainte boobu moo nekkoon ñaareelu plainte boo xamante ni Atepa daal na koy woon porter moom plainte Aby Ndour moomu le waaye nag abindur Ndour nag tribunal bi def ko daal di daan rek li nga xamante ni moom moo di un mois de prison avec euh, sursis ak 2 millions de francs CFA yoo xam te ni moom Aby Ndour moom la euh, war na koo fay. bu ñu paree foofu nag dañuy eh, wax ci ki nga xam te ni moom moo di eh, Modou Mbaye moom nag Modou Mbaye eh, nga xam te ni moom chroniqueur la foofa ca 2STV di animé Bantamba di doom ci Bekaay Mbaye moom nag Modou Mbaye ginnaaw Bantamba am bële passé mu génnee woon image du jour daal di ki def vidéo Père Mangone boo xam te ni daal vidéo bi dafa reetaan lu ci loolu nag Père Mangone moom la nekk moom tamit ci émission bi di gis-gis foofu ca Sen TV daal di ci gis boppam Euh, daal di si yëkkati ay kàddu yu ñagas jëmale ko ci ki nga xam te ni moom moo di Modou Mbaye moom le euh, moom euh, yoon vexé ki nga xam te ni moom moo di Père Mangone waaye nag mu ngi jéggalu bu baax ci noonu sax woo na ki nga xam te ni moom moo di Père Mangone waaye daf ko daal di raccroché au nez waaye dans tous les nga xam te ni moom moo di Modou Mbaye bu baax ki nga xamante ni moom moo di Père Mangone nga xamante ni mën pappa. bu ñu génnee ci euh, Modou Mbaye ak euh, Père Mangone nag dañuy euh, ñëw ci ki nga xamante ni moom moo di Balla Gaye 2 ci jubóom bi ak Malick Gakou ginnaaw seen xuloo boobu nga xamante ne ni mu ngi daté depuis 2015 ci combat Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène moomu lee nga xamante ni Balla Gaye dafa accusé woon ki nga xamante ni moom moo di Malick gàkku ni dafa faral kii di Eumeu seen ci noonu nag loolu daal moom moo leen jotale woon waaye nag ki nga xamante ne ni moom moo di Ahmed Aïdara ak El Hadj ñoom nag daan nañ ci euh, dox ay jéego ba euh, sax euh, semaine bi ñu génn la ki nga xamante ni moom moo di Balla Gaye ak Malick moomu daal di juboo ñu wax nag ci euh, série bi di euh, maîtresse d'un homme marié euh, série bi nga xam te ni sa waa Marodi ñoom ñoo ko daal di produire muy daw foofu ca 2 bi série bi nag ñu ngi tolloon ci saison 2 bi waaye nag saison 2 bi dafa jekk saay rek daal di jeex ba tax na ñi nga xam te ñoom ñoo koy seetaan ñoom daal lu ñu daal di gis rek moom moo di jeexantalu saison bi moom moo daal di gàtt si ñoom moom moo daal di brusque si ñoom waroon nañ leen may tuuti ñu xool comprendre li nga xam te ni moom moo di série bi laataa ñu koy jeexal ba tey ñu euh, desandi ak série yi ñu wax nag ci euh, série bi nga xamante ni euh, waa Soleil Levant daal di nañ koy lancé mu di choix choix nag ki nga xam xamante ni moom moo ci nekk actrice principale di Cathy Simard Cathy Simard moom sax daal di nañ koy gis tamit bokk na ci actrice yi foofu ci série boobu di infidèle waaye nag série bi di choix nag dafa andi concept bu bees daal di génn feneen ba tax na série boobu concept bi moom moo nekk faru rap ak gelu borom kër eh, ci eh, série boobu le eh, waaye nag dafa am li nga xamante ni moom moo di faru rab faru rab boobu nag moom mooy menacer jëkkër ji ak képp koo xamante ni nii daal dina jege moom Kati Chimère le ba tax na sax ñoom ñu ngi doon détaillé ci série boobu ñoom waa Soleil Levant ci seen émission boobu le di ngoonal nga xamante ni Kebs Thiam moom moo ko doon animé bu ñu jógee ci loolu nag dañuy ki nga xamante ni moom moo di Wally Ballago Seck di gone farama ren boobu le moom xamante ni daf ko daal di duppee euh, Guet euh, Farmaren rek daal di ci euh, nekk di ci séddale ay xar moom nag séddale bi daal dina koy tàmbalee ci ki nga xamante ni moom moo di Tarba Mbaye gannaaw ba mu ko mayee benn xar daal dina dem ci ki nga xamante ni moom moo di a Seck tamit daal koy may xar ci noolu tamit yemu fa daal di dem ci ki nga xamante ni moom moo di Ndeye Gueye daal di koy may benn xar waaye tamit Waly Ballago Seck man mii maa ngi xaar sama xar manit ba tax na mbokk internet yi dañ koy jeexlee rek ak ay faits divers yoo xamante ni nii daal dina euh, ñëw fii ci euh, Feeling Dakar TV ci émission bi di euh, nopp dalootina fait divers yooyu nag bokk na ci bi nga xamante ne ni moom moo di as ndaw soo xamante ni dafa daal di am jëkkër jëkkër ji nag moom lu ne la koy defal waaye soxna soosile moom euh, seen euh, kër euh, dañoo néew doole maanaam seen loxo jotul seen ginnaaw ba tax na sax moom soxna soosile ci jëkkër ji la yaakaaroon ngir dundal yaayam mi nga xam te sax dafa amee feebar waaye nag moom jëkkër le li nga xam te ni moom la koy imposer rek moom moo di ñuy bu ñuy sëy ñu koy sëyee ginnaaw sëy ginnaaw nag ñëpp xam nañ ni l'islam da koy tere waaye nag ki nga xam te ni moom moo di ndaw soosule ba mu bañee def lu nekk jëkkër ji ne ko loolu rek laa bëgg ñu seeyee ginnaaw waaye nag moom soxna soosule dafa daal di euh, bañ euh, ci ba mu bañee nag la ki nga xamante ni moom moo di jëkkëram euh, daal di koy commencé lépp lu mu ko doon defar rek daal di dagg lépp ba tax na moom soxna soosule amatul li nga xamante ni amatul lu muy dundalee yaay ji gannaaw ba nga xamante ni lu mu doon dundalee yaay ji lu mu ko doon faje yëpp jëkkër ji moo ko ko doon jox ba tax na mu doon sàkku ndimbal di laaj tamit lan moo ci seen xalaat lan la war a def moom soxna soosule beneen fait divers bi nag nekk as moom nag euh, defo nekkoon ak papam ak yaayam di dund lu neex euh, di euh, dund xalem waaye nag ci ab accident rek la ñàkk papam ak yaayam moom moomu soxna soosule waaye nag ci nokka noonu la daal di dam ci ki nga xamante ne ni moo di tantam ak ndijaayam euh, daal di fay euh, dëkk euh, ci loolu nga xam xamante ni tàntam boobu sax moom moo ko daal di fat waaye nag mu nekk jigéen ñi nga xamante ni ni duñu toog subaa ñu ngi ngénte ginnaaw subaa ñu ngi tuur ba tax na jëkkër ji daal di jël xale bi rek daal di koy def soxna di ko tëddee guddeeg ba jëkk suba ngoon soxna soosule sax demoon na bay bëgganteeg nit daal di andi nit kooku noonu si biir kër gi ngir mu takk ko waaye ndijaay bi dafa daal di lank rek ni ko loolu du si dal ndax nag ndijaay joojule dafa daal di jël jarbaat bi daal di koy jabaroo ba tax na moom soxna soosu lee mu am problème loolu la jaaxle loolu ñëw daal di ñu koy euh, diis ñun tamit ñu daal di leen koy euh, joxaat euh, ngir mu am ci solution. mbokk internet yi fii la ñu yem ak yéen ci actualité yi gën a fës ci biir semaine bi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje semaine prochaine ci yeneen actualité yi nga xamante ni moom moo gën a fës ci biir semaine bi.